mbokk yi noo ngi leen di nuyu noo leen di ziar ci barab bopp barabu sunu borom la barab boo xam ne nii ki ko sanc jaamu yàlla képp a taxoon mu sanc ko barab boo xam ne ki ko sanc gindi doomu aadama yi rek moo mësa doon ay yitteem di kenn ci njabootu sëriñ Tuubaa Séex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul di borom got di borom njurul borom xaban borom lagan Serigne Saliou Mbacké yàlla nañu ko yàlla fayal mbokk yi ñu ngi fii ci Lagan ay bokki taalibe yu am pas-pas am yéene lool Serigne Touba rek ñor lañ ñoo dajaloo bàyyeekoo fu nekk ci réew mi ñi jóge Ndar ñi jóge Ndakaaru ñi jóge Cees ñi jóge Jobaas ngir lan ngir siyaare ji jàmbaarul islaam ji nga xam ne lépp lu fi waajuram bàyyi woon yokk na ko yitteem yépp ci yàlla lay xëy ci yàlla lay gont nekkal yàlla ci waxtu wu ne Serigne Cheikh mu Serigne Saliou Serigne Guille Touré ñu gën koo xam ci gile RTS yitteem yëpp mooy nemmeeku Serigne Cheikh mu Serigne saliw ba xam mbégam ak bëgg-bëggam ci lu mu nekk rek mu fekk ko ca jeex takk ci sëriñ Cheikh mu Serigne Saliou moo ànd ak bokki taalibe yi nga xam ne li leen boole du lenn lu dul liggéeyal Serigne Touba mbooloo mu takku nii la ñu yegsee lagan mbokk yi bi ñu yegsee sëriñ bi dalal leen tàmbalee yëkkati xasida yi Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba sëriñ bi daral na leen berndeel na leen waaye berndeel na leen it berndeel gu am solo ci wàllu ruux jataay bu am solo sëriñ bi daral leen berndeel leen waxtaan ak ñoom soññ leen ñaanal leen ñu teewlu mbokk yi jataay bu am maanaa bi nga xam ne moo amoon tey benn fan ci weeru janvier fii ci lagan ci liggéey bu tedd bi nga xam ne. moom ngay liggéeyal sëriñ bi taboole ci sëriñ gilem yi muy liggéey bu matale nag di liggéey boo xam ni mbooleem sunu njariñ tey ak ëllëg mi ngi ci biir liggéey boobu ku déglu woote yi ñuy woote ci li jëm ci liggéeyu Xelcom ak liggéey bu mel ni Lagane xam ni bépp jullit bu bëgg lu baax rek woo nañ la waaye boo wëlbati ko waat woo ñu ci tur wu ñu xam muy tudd tur sëriñ Gilem yi danga woo jullit yëpp ba pare woowaat ñu ci tur woo xam ne ñun ñëpp ko xam muy sëriñ Gilem ñu bëggee woote boobu nag bu baax Mbàkke safoo ko lool te di ci sant yàlla di ci sant sëriñ Tuubaa ndax mënoon naa am te duñ am tawféexi dëkke fii nga xam ne fi lañ koy defe bañ di ñu ci woo kon nag ñun ñu yàlla dajale ci ñun tawféexi ñu dëkk réew mi muy amee ba noppi ñu ñu ci woo sant nañ yàlla bu baax ci loolu kàddu yi nag foog naa ni jarul muy gudd ndax sëriñ Gile mi yow ay kilifaam di sunu kilifa nun ñëpp te moom dafa wax ni doo ne muy roy kenn taxamul ci yow lu may jëf ak noppi tànn na nag mboog mbooloom yu ñu àndal ñuy jëf rek te bañ a wax ndax xam na ni lu waay mu sàmm ci yoon wi rek jëfa la ko may waaye doy wax mu ngi lay xamal ni mboog mbooloom yu ñu àndal danoo tànn di jëf ci yow ngir Sëriñ Tuubaa waaye nag te bàyyi wax ndax xam na ni loolu moo fi may lépp nun mbooloo nag ameel ko cant moom mii ndax ku dox jëm ci sëñ Tuubaa ku la ko yombalal defal na la loo ko mënta fay te yombalal na nu sunu bëgg ci liggéey bii nga xam ne moom ngay liggéeyal lislaam di ko liggéeyal képp koo xam ne ab murit nga moom mii jëmm la ci joo aji yombal la suñ digganteeg liñ bëgg a liggéeyal Serigne Touba ci sa liggéey bi ngay woote Mbacke noo ngi koy sant bu baax ci sa kanam nun ñëpp commencé àndak moom ci liggéey bi waaye kenn ku ci ne dalaa bàyyi ak ak sa sago te li muy jëf sëriñ bi rek ko waral ñun ñi àndak moom xamuñu tay ak suba ci moom saa bu xëyee rek dangay jàpp ni démb xëyutoon ndax pastéefam ak pas-pasam tolloo la yow mi nga xam ne yow la ko séqal ci digganteem ak Serigne Touba yaa ñu ko gën a xam leneen la ca dolli mooy mbooleem jëwriñ yi ci régions yi teew nañ fi dañuy tàmbalee ci ñu jóge Ndar ak ñu jóge Ndakaaru ak ñu jóge Njaaréem ak ñu jóge Pout ak ñu jóge Pout Jobaas ak ñu jóge Thiès ak ñu jóge Tiwaawan ak fépp foo xam ne am murit daan na fa bàyyikoo di ñëw ci liggéey bi te tey nga bàyyikoo fa ñëw ci siyaar bi na nga yëg ne sëriñ bi yëg na sëg ñëw waxoon naa leen ko ca ne tudd gi amul njariñ na ngeen yëg ne sëriñ bi nga xam ne moom moom mbir yi tey fay xam na ñëpp kon sëriñ bi yëg ne ni ñëpp teew nañ fi leneen la ca dolli kuit mooy mbooloo mépp maase nañ di la sant te di la gërëm te di la ñaanal yàlla li nga xam ne tëlewul dara noo ngi teewlu màggam gi di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam tey ñaan Serigne Touba mu ñaanal ñu yonent bi mu ñaanal ñu sunu borom mi tëlewul dara mu defal la ak yàgg fi lool Mbàkke te nga wér lool Mbàkke ba li nga bëgg a lislaam bëgg koo liggéeyal Serigne Touba lépp nu ànd ko yow ci dara ji Cheikh Khadim allahumma salli salaamaaleykum wa barakaatu ci kàddu suñu sang bu baax bii nga xam bala doon wax ne mi ngi leen di nuyu li ñuy njëkk wax mooy noo ngi koy mu yàgg fi loolu tànd ko wér noo ngi koy ñaanal lépp loo xamante ne ak bëggam la suñu mu defal ko ko ci seer ak baytin ñun nag am nañ tawfeex ju toll ne la munu yéene yàlla nu ko yàlla may yaakaar naa képp ku yàgg jëflante ak moom boo toogee fi kanamam la ngay mébétal sa bopp boo xamee dara danga xam ne lam la yéenee ko ëpp te njurul day dañ faa toog sunu sang ba sëriñ Saliou bi nga xam ne mooy moom te mooy moom ma ne ko sëriñ bi de noonu danoo gis ni buñ dëkkee fi yow ne la danoo bëgg nangam day mel ne dañ lay ñaan ab dërëm fekk nga ngàbb ab junni dina ko bëgg a jox mu ni ma déglul ma déglu mu ne mbir ma gën naa kawe loolu kon nañ am kóolute ci ni ñëw fi moom mooy di jafe jëfal ko mooy di jafe waaye bu xasee am rek lépp baax na kon kàddu nuyoo yu sell yu tedd sëriñ bi mi ngi leen koy jox mu gële seen ku jege ak ku sori ku bokkoon te teewut ak képp wax ne am nga cofeel ci mbir mi ndax yéen kat dikk ngeen ngir siyaar ko te siyaar moom lañ ci daa dalee lu baree baree bari la te bayit yooyu nga xamante moom la sëñ Mouhamadou Sakhir waxoon ak El Hadj Mouhamadou Fadil isbi siyaarati talxaa kulla makrumatin wa yantafi bi liqaa il faqru wal xawru kon dafa tolloon nag la nga xamante ne bii mooy njobaxtan la mooy li si Ahmadou Bamba waxaloon boppam ca Sarsara muy inna la seen iya Sarsara xat xasadu siyaarati faaraqu daarine aw saara ku jug jëm si fi man siyaare si ma ci barab bii te sa iblaat waxoon ne dafa tudd barab boobu waaye bépp barab boo ko fekk noonu la mel tàggoo nga ak bàkkaar te moom mii day day ku sel ku tedd ku baax koo xam ne ku ànd moom war nga koo dimbalee teg sa mbir ciw yoon war nga koo dimbalee dëggu ak dëddu adduna war nga koo dimbale ci di sellal ak rafetal bu ñu ne dañoo jëm ci sëriñ bi bu kenn naw la mu yor waaye bu kenn xeeb itam la mu yor bu kenn tële ba nit du ma jéem a dem te ku dikkitam la ngay xame ne la nga doon jëf ci sëriñ bi sun borom nangu na ko mooy nga xeeb ko ba yëgoo ko ndax day fekk ne lépp loo jëmee ci moom boo doon ay junni junni junni fekk moom ma ngay jëmee ci sëriñ bi lu ko duubal ci ay yooni yooni yoon te di du ko yëg kon foofu yi ma ci ñaari baat yooyu mooy lay na xamtum salaata wa aatitum sakaata daf ci am leen lu ci dolli mooy ak wegeel ak fonkeel te ngëm moo koy laltaay sun ma nag dafa dogal fii ci jamono jii amul jenn jëmm joo xamante da nga toog ak moom te doo am loo ci sa xol ci ormal ak fonkeel te fa mu toll ci yàlla rek a ko may waaye koo taxool ko ne lay xaasam di sansam faw mu naddil la ca kon jataay bi ku ci ne man nga cee jëlee loo xamante ni bii ba nga beroo yow képp wala àndandoo ba mënoon am te ñëwoo fii jataay bi képp la ko mën a may kon sëriñ bi yàlla fi yàgg te ànd ko wér sëriñ Saliou dafa daa bari lool bayit woo xam ne daf ko daan wax bu masaana dajale donga yi te ndaje mi mooy ndaje mooma mooy fadaxatan waraxatan lan yu sira sax sun araada an yekkoon moo sira loxoy nee na ko noflaay ku bëgg jariñu du ko wéttalikoo ku ne xam ne ab tayeel du ànd ak moom nit ku neenal du ànd ak moom la sëriñ yu amoon nga xam ne boo nekkee fu sori ci réew réewi taax yi farlu ba ayu bis gu ne nga may ko ca bis dana bujj las doon def ca taaxee ca lu neexul yàlla yàlla dala cay génne waaye moom mi nag waxuma la ayu bis waaye at mu ne bu fekkee da nga jataayoo ak moom boo fi jógee ba waxtu wa di dellu si déwén da nga yëg dolli ko ci sa pas-pas ak rafetal goo xam da nga xam ne ci jotaayam la ko suñu borom fàggule te yaakaar naa ni fii mu leen dajale seen tawfeex dëgg-dëgg leen ko may ndax barab la boo xamante ne bii ku xamoon na mu meloon du fi Sëriñ Saliou wi ne ndax man fi laa yewi ko nga ñëwaat fi xool ko nii mu ko liggéeyee dalay wóor ni dundalut tabax yi bàyyi ruu yi kon ku fi ak sa siyaar si xamal ne am nga xaas am nga tawféex waaye xaas boobu ak tawféex boobu itam kenn ku ne da ngay siisir sa bopp langa nga ci am nga ñaanale ko ko ak yàgg ak wér ndax ak yàgg ba ko wéram kat li muy defar ci kaw suuf lu dul moom mënu ko cee defar ndax man day mosuma toog ci menn mbooloo moo xam nag ay murit kese lañ wala ay tijaan kese lañ wala ay murit ak tijaan lañ te joxuñu ko orma ju rëy ak fonkeel te lépp na ma doxee diggam ak borom rek a ko waral ndax amul kenn koo xam ne ginnaaw ba nga waxee ashadu an laa ilaaha illallaah ashadu anna muhammadan rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam woyofal nga diine yàlla day nattu kay nga mën caa bañ a man lu bari waaye nag loo fonk-fonk diine boo agsee fi mu xam ne war nga koy jàngiwaat loo fonk-fonk fu ñuy jàngi alxuraan muy daara boo agsee fi moom jàngiwaat ko loo fonk-fonk fu ñuy liggéeyale lislaam ci ay tool di xool koom ak futul xel koom bu agsi ci moom jàngiwaat ko kon sunu borom mi aar yàlla na nu ko aaral sàmmal nu ko te may ko wér gu ànd ak yàgg te li muy liggéey ci lislaam ak taalibe gi nun ñi ñu bokk ci taalibe gi lam nu yéene yàlla na nu sunu borom may nu jëf lu nu ko tax mën a am kon lu waay doon jëf ak nu mën a toll waatal mel ni da ngay doog a door ñëw ndax ñëw nga foo xamante ni bii kat ka ba yaakaar ne war naa kaaloo bu fi accès dana daal di gis ni ci laxasaayu la war a toll sëriñ bi yàlla na nga fi yàgg tànd ku wér nun ñi itam la nga nu yéene yàlla nañ ko sun borom may te sa nu ko foo déggee ci nun wala nga gis ci nun la ngay dégg mbaa nga di ko gis yàlla na nekk loo xam ne daf lay bégloo ndax yow lislaam lay bégloo ak taalube lay bégloo defaruk taalube tam mooy sa yitte kon nag ñi nga xam ne dañoo laxasaa xelu ba agsi ñooñu kat naxnul xiyaalu wal xiyaalu addaru bi an yu xasasa bi xeyr yun nooy njaboot gi te yiw bu néewee ñu di ko séddale ñu njëkk ak see ci gën a yey waaye fii nag yiw yi dafay néewul dafa matale te moom kat ku nangoo liggéey mu liggéey loola ku nangoo jaar ci yoon mu wan la ko ku bëgg a tàggoo ak sa ay bakkan mu tàggale la ak moom amul lenn loo xam ne daa si dégg ci yoon yi tasaw fii nus di sellale ak roo te doon loolu ma ngi koy dund ma ngi koy dox ak ñoom ko seqal xéewul nag seen saa sa muy am ak yow ndax saa soosee mën nga caa gañee yow loo xamante ne bii boo doon dox ci yeneen barab ay at at doo ko ca am kon lii nu sun borom may ci jotaay bii nanu ko xam bu nu ko xamee nag dañ koy waajale ñaanal ko yàgg ko wér waaye ñu laxasaayoo ka nag xeeb la nu jëf te gën a farluwaat te wax ngeen kàddu googu léegi ni da ngeen a bëgg a féetewoo ci jëf te bañ a wax waaw ma boo xamante ne bii tey jii boo dajale woon ay junni toni ceeb boo ko ko yëtee mu am njaboot gum ko dundalee diir bu gàtt ñu laajaat ko ne ko jeex na kurut moom ku ngeen ci xam sëriñ boo xam ne boo dajale wa ay junni junni piis jox ko ko ñu ñaw ko njaboot ga sol ko ab diir bu gàtt ñu la rappto foo ci xam ko dul moom sëriñ boo xam ne doo gis ci moom lu dul yàlla ak sëriñ bi mi ngi nii na fi yàgg tànd ko kon kàddu yi day mbàkke maa ngi jéggulu ndax danga ma ne jottali leen nuyoo bi ca na mu gën a rafete na mu gën a rafete nag mooy ni nga ja ni nga jàkkaarloo ak ñoom Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul dafa wax ci nax ju xalaal xaaji fa nasratul hubbi min ash-shaykh ila muridihi hiya al-masaya wal fula lii nu mën a gàñe ci mu jàkkaarloo ak noonu waxuma noonu nu jàkkaarloo ak moom dara mën nu ko may dul loolu kon nag yàlla na nga fi yàgg te ànd ko wéeru nu di nan sax ci say ndigal te di ko jëfee man ko te di ko defee ko bëggee te laq ci sa ngërëm saa nu bettul noo ngi jéggalu wasalaamaaleykum ginnaaw bi ñu eh, sante <coughs> sëriñ bi nga xam ni moo waral lii yëpp ñi ngi sant mbooloo mi ñu àndal yëpp ndaxte siyaar bi yàgg nañ koo bëgg waaye tey la ko sunu dogal ndax boobu ba ñu ñu doon soññ ci siyaar bi waaye nag murit moom lépp lu muy def da cee war a am ndigal buñ demee ba bëgg gi mu dem ba leer ñu bëgg nañ ko ci lañ ko yéggee ku baax ki <coughs> suñu ñëw biñ fi mujjee ñëw sëriñ bi nangul ñu ko ñu tànn bis bii nag ñëw siyaar si waaye <coughs> siyaar bi moom euh, ku gis ni mu demee xam ni sëriñ bi fonk guñ ko fonk war nañ koo gën a yokk ndax fii ku fi ñëw di nga xam ni fonk goo ko fonk lim lay fonk moo ko raw waaw wala xat karam naa bani aadama bi suñu borom wax moom mii moom lay dund saa su ne da koy yëg ndax boo gisee maanaam dalal gi mu dalal gan ak ni mu leen teeroo ak ni mu xatee moom ak ni mu yaatalee jotaay bi nga xam ni góor yàlla yi dañoo dugg ba noppi mbir mi xat mu ne nañ na góor yàlla yi dugg mu yaatu ñu génn yaatal jigéen ñi soxna yi dugg mu siyaar leen ku nekk mu jokkonte yow ay kàddu loolu ku ko gis xam ni jox na war ma nit ñi fonk na leen fonk na taalibe yi waaw lu ñu jéng jëm si moom rek di ko bëgg rek di ko siyaar si rek di sàkku ci moom ñaan te di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te moom it li ñu leer mooy li ñu yéene ci tawféex ak ngëneel moo ko ëpp fuuf ca tontu yooyu lañu jotale ci kàddu sëriñ euh, Saliou Sylla ñu koy sant nag sant gi moom am na fu muy tàmbale waaye amul fu mu yam ñun moom saa su dañ naan duñ ci dara lépp sëñ bi lépp sëñ bi ndax tawféex gu ñu euh, gi ñu gi ñu am nii moo nu ko defal ndax am tawféexu mën a am mbooloo mu toll nii moo xam ne ñu ngi sàkku bootu ci yow ngir ñëw ci sëñ bi rek loolu rek tawféex lu gu yaatu goo xam ni maanaam boo doon jël àdduna ak li ci biiram sax di ñu ko jox sax mënu koo fay waaw moo tax ñuy sant bu baax a baax a baax te bërëb bii nag ku fi ñëw ku gis mandarga yi nga xam ni fi ñu toog nii nga xam ni sëriñ Saaliw bërëb bu mu fonkoon la lool waaw lagan la tudd nag waaye la gën la gën li gën a fi nekk daal ñi ngi naan képp ku ànd ak ñun ci siyaar bi daal yàlla suñu borom defal la gën ci barkeb sëriñ bi te dina te tey ñaan nag sëriñ bi yàgg fi lool te ànd ak wér. ñëw ngeen fu mat a ñëw seet si ngeen ku mat a seet si sëriñ Cheikh de fu mu mës a nekk ak lu mu sori sori ak lu yoon wi naqari naqari nit ñi dina ñëw fekk si ko ndax ci yàlla rek lay xëy nekkal yàlla rek a wóor mbokk yi. di sant bu baax sëriñ Gile ture ñu gën koo xam ci Gile RTS. yitteem yëpp Serigne Cheikh bu Serigne Saliou la yitteem yëpp liggéeyal Serigne Touba la fu ñu mës a woote ànd naag mbooloo mi ñu wuy amul sogo ci Serigne Cheikh mu Serigne Saliou cofeel gi foo ko natt weesu na ko waaye bëgg nga ko jër a bëgg sopp nga ko jara sop waaye Serigne da ngay am nga ko Serigne Cheikh mii de léppam sunu borom la lu fi way juróom wi bàyyi woon yokk na ko lim bu fi bàyyi woon ci ay dongo yokk na ko te kenn déggu ko ci lenn nag lu dul liggéey ak jaamu yàlla jërëjëfe Serigne Touba waaye Serigne Saliou yal nañu ko yàlla fayal waaye Serigne Cheikh mu Serigne Saliou naka ñëpp ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér Serigne Cheikh mu Serigne Saliou naka ñëpp ñaanal yéene ji nga xam ne am na ko ci wéy liggéey bu solo bi way juróom ba doon liggéey lislaam mu yeggali ko am ci ndam te ñu ànd